dañu gis ah, waaw mais sama gars yi xam nga ñoom ñun ñëpp benn lañ quoi tey jii euh, mën nañ ne acteurs Sénégal yëpp dañoo war a booloo doon benn parce que ñun ñoo bokk luñ ñu bëgg ay euh, collègues lañu quoi. mais waaw gëm naa ne affaire bi moom day dem quoi parce que ñu ngi organiser ay match di organiser ay retrouvailles tout ça pour rek pour rek gën a xamante gars yi doon benn quoi pour ñu bañ a doon kenn bañ a critiquer moroomam wala mooy loolu quoi. non gars yi ki ma si ñi ma gën a am ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp tout ñoom ñëpp mais ki su mel ni Jean Paul ak Pa ñoom ñoom laay faral di kiiwal lu bari mais gars yi samay gars la ñu ñëpp ñooy waxtaan tout le temps mais ku may gis moom damay gis paasan man ak moom parfois ñooy ànd ay Jupin gars yi ay ñoom Malcolm tout <laughs> ay ñoom Ras. buzz buzz non amul buzz de man kay sa ma bañ waaw dama koy dama koy sant yàlla mbégte la quoi tey xam nga tey nga dem di jouer ba ñëpp di la dégg fu nekk am ñoo xam ne ñu ngi lay nekk di béggee am ñoo xam ne ñu ngi lay nekk di di critiquer yooyu yëpp dafa neex quoi man man j'aime bien ku may nekk di critiquer quoi <laughs> parce que boobaa damay gën a defarwaat xoolaat sama sama acting bu baax yaa ok euh, ban séquence la loolu. ah yaay bi ñu sama xaalis. Ah. waaye bàcc ma sàmb sàcc la sàcc la ba pare formation la quoi <laughs> xam naa day xoolal ay xaalis mu koy lakk gaayam xam naa ne jour boobu adduna yëpp mer nañ ko mais séquence boobu mooy séquence bi ma gën a neex sama séquence yi quoi parce que gis naa ne gis naa ne koy gars yi di di partager gis naa ni ko gars yi di di jëlee parfois damay romb seen bi sax mais ñi ma bañoon ñëpp séquence boobu moo tax ñu ñu bëgg ma <laughs> mais mais tamit joué laa ragal moom laa la expliqué dem naa benn instant mënatu mënatu moon génn fenn mënatu moon wax ak kenn parce que ñëpp dañuy foog na noonu laa mel quoi mais loolu sant yàlla parce que sama rôle dama ko réussir c'est ça moo tax mu demee noonu dama koy sant yàlla quoi mais xam nga sa jabar boo ko takkee mën na indi ay problème nar la sonal yenn sonal yi boo ko munul dara da koy da nga koy faagaagal quoi am na gaa yu koy def mais man melu noonu quoi rôle bu ma jox mu joué ko et puis voilà quoi célibataire. ah. maanaam su ma takkee jabar. su ma takkee jabar sama jabar du ma moom noonu quoi parce que sama jabar la mooy sa mooy nekk sama yaay mooy nekk sama sœur mooy nekk sama complice mooy nekk sama lépp. kooku su ma ko jëlul teg ko di ko aayoon ne ne di ko naxtaan ah duma ko dóor duma ko saaga duma ko wax dara. avant Marodi euh, maison production yi ma mës a yëpp ma apporté mais mën naa ne li ma li ma gën a apporté mooy maison production bu Marodi gis naa sama gis naa ne sama sama sama sama kii fa la gën a yokkoo et puis gis naa ne euh, fa laa gën a amee visibilité tout ça. <laughs> sama réalisateur rek nii <laughs> lépp kii la. <laughs> yooyu noonu la demee quoi lépp moom la quoi xam ma rek waaye sant sant yàlla en plus. non visé wu ma fan man damay liggéey ma liggéey la ku ma ku ma soxla woo ma fay ma xaalis jox ma rôle boo xam ne neex na ma ma def ko parce que du ma ne bañ bañ naa rôle bañu ma benn rôle mais am na benn rôle bu may bañ du ma egg du ma egg si tour bi bonam ñaari tour yi. rôle boobu du ma ko joué xalaatuma ko non buñ ma non buñ ma sumee du ma sumee non du ma sumee non non xam nga xam nga su fekkee da nga may introsé donc professionnel am na yoon yoo xam ne waroo ma ko laaj on se dit la vérité parce que parce que parce que respect la mais de mais nañ tamit ñu naakaan doo sumee doo sumee feneen non. waaw ah, léegi lan ngay wax ak ñi nga xam ne film du du moyen de affaire sens la sens la tey jii nii mën nga dem mën nga gën a gën a si acteur yi nga dem soo demee gars yi bu ñu gisul sa profil gisuñu rôle bu la mën a jox duñu la jël sens la quoi yaa. léegi ñi bëgg a nekk acteur tey loolu xanaa acteur moom boo ko bëggee nekk il faut nga am patience. patience foog nga am ko parce que dafa metti parce que Sénégal mën naa ne ñëpp bëgg nekk acteur mais ku si sa wërsëg nekk rek da koy def incha allah. Euh, non loolu du ma si fi kenn ñaawul àdduna kenn ñaawul baax baax moo am solo non affaire non non non no mais non mais affaire de profil la mais parfois nga gis nga gis du ma àdduna kenn ñaawul mais parfois nga gis koo xamante ni ñaaw na benn peru ñaaw mais dañ koy jël. dañ koy jël parce que li nekk ci moom ñoom ñoo ko xam ba tax ñu jël ko man maa ngi nii di wax yow dama dër ba yàqu mais lan la gars yi gis si man ba jël ma parce que gis am na lu ñu gis si man non dër bi camouflé camouflé dër yàlla bindee ma ko ma judduwaale moom màggaale ak moom ah màggaale ak moom ma koy nëbb non du ma ko non du ma ko nëbb dama dër ay ndaanaan ngeen yéen am leen jaaw barki alxuraanu karim. eh mineur eh. eh, mineur wala majeur bu la gën a. ah mineur wala majeur la gën a. lan la mineur mineur bu la gën a. bu baax na. <laughs> <laughs>